salaamaaleykum Awa. maaleykum salaam. yaa ngi ci jàmm. waaw maa ngi ci jàmm lu bare bare. Awa yow depuis combien de temps yaa ngi fi. Ah, man depuis 2008. waaw ah, ba tey maa ngi ci fi aar bi. Awa dañ la gisoon jamono jii nga xaw a raar mais jamono jii dañoo gis ne da ngaa bi fecc mi nu mu demee. <laughs> ah waa gis nga loo gis rek day am noppale ko loo gis rek day am noppale ko. léegi boo noppale ko après dangay ngay ñëwaat loolu la ñuy wax réglé pour mieux sauter ah te tamit li ñuy toog Sénégal nag daa bëriwul loolu moo tax ah, moo tax des fois ñuy raar. Ah, awa yow ak feccikat yi ba yan link ngeen am yan yan yan yan lien ngeen am. ah man gars yi ñoom ñëpp samay xarit lañ de waaw ah, franchement parle ñoom dañ maa bëgg waaw ñoom ñëpp samay xarit lañ waaw. projet moo nekk sa kanam. waa ñoo ngi ci rek ñoo ci nekk suñu ginnaaw papa muy Papa Moussa Sonko ñoo ngi ci ginnaawam daal moom mooy fu mu ñu jaaral rek foofu la ñuy jaar waaw mais am nay projet yu bëri nag ci nekk mais lépp moom la daal. yàq fecckat yu jigéen ñi amoo leen benn problème. non non ñoom ñëpp samay xarit lañ ay Fatou Waré ah ñoom ay Jami Gueye sama doom la ñoom lañ yi kooku sama seex la. boobu sama seex la maa moom ñoo defandoo lépp merci beaucoup kii sama doom la